comment dirais-je de Karim Meïssa Wade Serigne euh, mbay si Serigne Babacar Sy Mansour moom mm. aussi mu nekk xalifa général di euh, Tidiane moom dal dinay euh, réagir démb à travers benn communiqué boo xam ne si nii def na ko mu woowaat maanaam politique yi ngir ñu mën a waxtaan ba trouver une solution maanaam concertation la woote dialogue bu ko defee ñu mën a trouver une solution waat na xale yi tamit ndaw yi que ni nañu ànd ak dal parce que tamit génn yàq beeg euh, toj bekk yu ñu mel ay nit di ci ñàkk seen bakkan tamit euh, je pense euh, loolu tamit amul da njëriñ Sénégal du ci du ci gagné te kenn du ci gagné masawu na bu baax a baax ñi nga xam ne si ñoom ci am ay gaañu gaañu ñi ci ñàkk seen bakkan tamit jaal na leen donc muy mu wax que ni moom réew mi bu amee foo xam ne si ni toll na fi ci ay yëngatu-yëngatu en tant que koo xam ne si ni kilifa la dafa war a daal di jóg yëkkati li nga xam ni moom moo di kàddoom daal di woote ak dal loolee la def démb ci ab déclaration situation euh, noo jàngatee. waaw jàngat bu njëkk bi ma si def mooy damay saluer sortie bi. Mhm. parce que ñu bëri daan nañu wax na kilifa diine wax kilifa diine wax. Mhm. donc bu waxee dañ koy dañ koy dañ koy rafetlu. Mhm. mais dafa am loo xamante ni tamit dafay baax ñu ñëw ci benn constat bu am. mooy kilifa diine yi sous président Macky Sall bokk nañ ci ñi fi gën a am ay jafe-jafe. ay position yu méttee métti lañu yu inconfortable lañuy lañu la ñuy jànkonteel sous président Macky Sall. parce que Abdoulaye Wade jàkkaarloo ak crise yu mel nii crise yëpp daanaka da doon doon ay crise yu politique mais su Macky dañu gis ne am na fi lu amoon événement mars 2021 yi hmm. ñu gis taxawaay bi ci Serigne Mountakha Mbacké taxaw ba mbir mi yàlla def mu am jàmm hmm. ñu demaat ba juin am nga gis ay nit taxaw ne Serigne Mountakha da nga ne woon boor la da nga ñu koy fay hmm. lan moo tax amul ñu ne ñaan na dañ koo mayul nga gis kon dañuy am benn position bu compliqué boo xamante ne dañ fay toll tey mm. régime bi fi nekk moo leen fa yóbbu mm. maanaam ñoom bu cóolee ba cóol ñu ne xale fi génn leen wax mm. léegi bu fekkente ne mu doyee waar su fekkee ne dafa am benn détenu bu fi nekk ñu dem gis xalif bi ne ko waxal nga Macky mu bàyyi kii ñun xam nañ ne la ko toppee mm-hmm. lii mu ko toppee lii ak lii ak lii xalif bi bu jëlee téléphone woo Macky wax ko lu mu koy wax affaire justice sama yoon nekku si wax dëgg yàlla sañ bi sama yoon nekku ci li justice la léegi bu fekkente ne réew moo am jafe-jafe président bi ne xalif bi wala nit ñi ne xalif bi na wax xalif bu waxee léegi gis nga citoyen citoyen bi nag mooy mooy nekk xalifa diine mooy mhm. que citoyen bi bu taxawee moom gis xalif bi man pourtant bañ diw diw mi may xeexal nii diw bi ma mere nii mhm. ba mu defee nii sama leader ba mu ko jaayee dool def ko def ko dama xalif bi wax xale bi waxul te pourtant xale bi jël na téléphone woo kilifa gi laaj ko ne hmm. diw ak diw hmm. toujours ma indi fi exemple Karim Wade ak Khalifa Sall hmm. Karim Wade euh, ban xalifa bi moo ko ñaanul mu mu se se se sëriñ sëriñ Sidi Mokhtar merci sëriñ Sidi Mokhtar xalifa euh, xalifa xalifa Sall moom euh, Al Amin nu mujje dara mais su fekkente ne moom beneen beneen sens bi la léegi nga gis ñoom seen bopp ñoom ñoo jëlaat communiqué di ko partagé ñu ne kilifa gi wax na nañ def dal nañ def ni nañ def ni fekk ñoom seen reñ wala seen toogaay bi ñu fi nekkee kàddu kilifa diine yi dañu dem ba dayo bi mu amoon ak taxawaay bi mu amoon dañ ko désacraliser merci mm-hmm, mm-hmm. parce que kilifa diine danaan wax ak président mu dégg ko mu wax mu bàyyi mm-hmm. toujours ma répété ko Serigne Cheikh dafa ne Abdou Diouf dafa toog ñuy critiquer Abdou Diouf mu ne yéen a ngi koy waaye am na sikk de waaye am na am na am na qualité moo waral tey ji kilifa gi diine gi yow soo ko ne bàyyi nu bàyyi dañ naan mais kilifa gi mu dara ci moom mhm. mais fii tey ji ban kilifa nga naan coow li am na ñu ne kii mu mën dara ci Macky Sall bàyyi na déedéet dañ naan kilifa gi dinañ mu mën dara ci peuple bi. parce que wàllum justice lan lay wax. wàllum justice non non danaa naan sama yoon nekkul si. il faut ñu bàyyi ba justice def liggéeyam ba pare ñu soog a mën a. doog a mën a àddu loolu la ñuy wax waaw te kilifa gi dina bu waxee askan wi mm-hmm. askan wi dañ koy déggal. Mm-hmm. Serigne Mountakha ba mu ne dem leen ngeen dem yebal euh, euh, comment comment dirais-je am na ko mu yebaloon j'ai oublié son nom. Euh, sëñ Bassirou sëñ Bassirou Porokhane merci moom moom la yebaloo. Mm-hmm. mu dem waxtaan ak waa Yewwi askan wi ñëpp daal di def message Sonko def discours bu am doole na ñëpp na ñibbi seen kër. Hmm. nañ dal ñu dalal situation bi ñëpp daal di dal. ku ñuy ñaan nekku fi ku ñuy ku ñuy digal. ku ñuy askan wi ñëpp daal di neen derees. Hmm. dal jàpp seen jàmbur. parce que dañuy kilifa gi kat moo bëgg ñu daal lépp daal. Hmm. waaye léegi kooku tamit mu dem ba fitna amaat. ñii di ruux Macky Sall nankan tëj ko tëj ko. mais bu kilifa gi ñaanee ñëpp ñaan na la ba tegal mbir mi ci suuf bàyyil parce que ñëpp xamoon nañ ne à la limite lan la bataille politique la woon il fallait que ñu éliminer le gars. Mm. pour mën a am lu am pour mën a am lu ñu bëgg wala ñu yegg fi ñu bëgg a yegg léegi ngeen def loolu lépp bëri mi taxaw ci pëcc xoo nga ne kilifa génnal wax boo waxee nit ñi nañ la dégg. Mm. yaa yaa ngi gis ni, position bi ñuy dugal suñu kër kilifa diine yi mm-hmm. moo mm -hmm. tax su ma Sall man dama dama dama cee yërëm kilifa diine yi dama leen yërëm bu baax a baax a mm. baax que ñoom ay diplomate lañ mm ne la wax ci kaw mënu ko wax suuf am nañu yàgg toog naa na kilifa gi wax na kilifa gi wax na kilifa gi wax est-ce que mm-hmm. kilifa gi dafay génn mu def conférence de presse mu dal ci kaw kilifa gi ndax ak lépp loo mënti wax Macky Sall le président mm-hmm. am na ñoo xamante ne ay modérateur lañ seen mm-hmm. kàddu ak seen i mbir fa muy yegg tey jii amaana ñun suñu bos du fa yegg parce que ñun des centaines de personnes rek ñoo koy ñoo koy jëfandikoo mu moo tax ma jàpp ne tey ji dañu am intérêt suñu kilifa diine ñu wekk leen ñu teg leen seen place bi ñu nekk te loolu nguur gi fi nekk malheureusement daf ko raté bokk na si li nga xamante ne eh, gàllankoore na ko lu bëree bëri bëri ba ci biir kër yi léegi dafa féewuloo mhm. kii fii la bokk fële la bokk te pourtant mhm. bu njëkk ba ci euh, ki ci des nekk PDS mhm. euh, papa ji nekk leneen te problème du am pourtant débat dañuy waxtaan mais dem nañ ba loolu nit ñi léegi def mhm. ko si bopp nit ñi jël kilifa diine gi kàddoom bu la mhm. arrangé nga mhm. indee ko ni bu la arrangé nga yóbbee ko na le man képp ku ci mënti wax genre discours boobu laay gis maanaam woote ci dal ñu bàyyi yàq bi ak yi ak yi ak yi ak yi waaye tamit nag dina baax lool ñu ne président Macky Sall nag wax dëgg yàlla na nga respecté constitution bi parce que ab dëkk xam nga tey ji nekkuñ ci charia république la ñu nekk république li ko laytaay mooy constitution constitution boobu moo définir man Moustapha lan laa war a wax ci pénc mi Moustapha am naa am na lan mooy sama sañ-sañ mhm. lan laa moom ak lan mooy sama wareef ak lan mooy sama taxawaay ci réew mi constitution moo définir loolu waaye léegi loolu bu amee koo xam ne dañ koo teg ne ko yaa ko war a garder mhm. mu daal di koy salfaañe mais kooku yaa xayti mooy mooy mooy source problème yëpp mhm. mooy source problème yëpp dañ ne nag kilifa kenn du ko yeddaane ci pénc c' est vrai kilifa kenn du ko yedd ci penc. Mm, waaw kilifa kenn du ko yedd ci penc man dama gëm ne. tey jii am na loo xamante ne euh, mën nañ ko wax président Macky Sall loo xam ne duñ ko wax ci penc mi. Mm-hmm. mais mieux dafa am beneen mbir bu am réaction bu am ñoom par rapport bu ñu am ak kël kilifa diine. Mm-hmm. ba mbir mi amee da dégg ñu ne dépêché na ministre de l' intérieur ak ministre des forces armées envoyé leen Touba. Mm-hmm. loolu nga dégg ca ëllëg sa bi coow li mais tey jii ñooñu bu ñu jiitoo dem waxi ji la ñuy wax. bu ñu jiitoo dem lan la dañuy dem di lay ji lay benn pàkk la. léegi dañuy loolu ban ban ban sentiment lañ ci am dem leen ngeen wax ko li tax ma def lii. léegi après suba lan moo am ak lii ak lii ak lii. gis nga problème boobu tant que tant que tant que réglé ko pour man tant que réglé ñu ko fa ñu jëm suba mooy mooy mooy gën a compliqué ban problème lañuy ñuy mooy su fekkente ne boo dee boo defee sa rajo xuuna yow yaay daw sa ëllëg sa dem kër kilifa diine gi toog da ngay def lu ne weng. Mm. départ daw toog jonkan naka sëñ bi gis nga ñi dañoo bëgg taal dëkk bi ñi ñooy ñu bon ñi ñi ñooy seytaane yi gis nga ñii sëñ bi xoolal lii lii sama sama mhm. sëñ bi lii su ma ko bàyyi woon kër gi fii la jëm ah, mhm. lii ak lii ak lii amul moo tax ma ne sëñ bi tamit ñi leen di entouré ak ñi leen di dimbali ci war nañ leen di rendre service bu baax a baax man su doon man la soo soo toogeex man wax a wax a wax ba sa yàpp saf ñeex boo jógee dem damay woo ëpp ñi nga tuumaal woo leen mhm. téléphone kar sëñ bi soxna leen ngeen daw si départ ñu may dégg si dëkk bi lan la ngeen yebbee ko yéen tamit ngeen sottee ko sottee ko a merci ma def le pour ak le contre mm-hmm. su jaree ma waat kële woo ko naka yow li nga fi wax ak ñii li ñu wax du benn dama bëgg xam nga lan laa bëgg lii ak lii ngeen defee ko nii ak nii ak nii mooy dëgg mais su fekkente ni ñi dañoo ñëw wax ñu dégg leen ñoom kese ñi wax dégguñ parfois mën na indi erreur d'incompréhension mm-hmm. parce que am na kilifa diine yoo xam ne waxuma xalif généraux dajale ay ay coupé collé coupé hmm. su ngeen ma falee am na ñoo xam ne ñu ngi wër naan suñ ma falee màggal dootu fi amati gàmmu dootu fi amati ñu hmm. dagg am na ñoo xam ne ñu ngi naan ñu indi su ngeen ma falee màggal dootul amati gàmmu dootul amati hmm. dagg teg noonu dagg Macky Sall il faut ñu xeex ak moom lu yàlla sàkk Macky Sall moo ci gën a yées ñu daggaat loolu teg dajale ko dajale seen séquence yooyu yëpp dem kilifa gi toog ne ko man du ma du ma du ma sosuma defuma dara lii moo ko wax play vidéo bi ne ko déglu lii lii lii mooy lii la waa ji wax kii moo bëgg a yor réew mi déglu ko kilifa gi ne tat déglu premier borom dégg su ngeen ma falee màggal dootu amati gàmmu mu onge mi laay mi ne seytaani rajim kii ku mu doon kii ku mu doon <laughs> gis gis nga gis nga manipulation fi mën a yegg mm-hmm, mm-hmm. et pourtant kooku mu kilifa gi ñoo tëju si benn bureau ñoo mm-hmm. tëju si benn néeg toog di wax léegi loolu boo ko defee ci bopp kilifa gi du mën a génn wax ko ci mbedd mi te lu muy téye la di ko xoole lu muy téye ko ko xoolee. Ah. Mhm. lu muy téye keneen du ma wax ba mu weddi ko. Mhm. parce que dana man dañ ma déggu ma de. vidéo lañ ma gis ko muy wax wax te waxu ko benn yoon ñu bëri la ko wax. Mhm. wax na fi lii tënku na ma Sall lii wax na lii wax na lii wax na lii moo tax ma ne ñi leen jege ñu leen war di dimbali lañ. bu nit ñëwee wax moo xam opposition nga nekk ñëw ne non non dañ may jaay doole dañ may def nii def nii wax nga ba doyal. ma xool gouvernement bi kan sa ëllëg sa ma wo ko ñëw na ko démb de ñëw nañ fi kalaame ak lii ak lii lañ ma wax lii ak lii ak lii ak lii ak lii wala su ko su fekkee su ma ko waxee sax mën na indi euh, beneen wax ak tontu mën ne coow li may dégg si réew mi lan la coow li concerné la wax la lan la nga explique explique après tamit ma jël ko am am am ci gis-gis boo xamante ni su boobaa euh, erreur mën mën mën naa ñàkk parce que seen kàddu fu mu toll. Mhm. Euh, seeni i entourage ak yooyu pour man moo tax j'ai beaucoup aimé ñiy proposer seen programme. Mhm. ñu xool noo xamante ne nañ leen gën a nañ leen gën a mhm. nañ leen gën a wekk. waaw mmh. parce que li nga wax dafa am solo sax ci entourage bi surtout ci xalif xalif généraux yi war nañu am ñoo xam euh, ñu méngoog jamono mmh, mmh, xam li nga xamante ni mooy tolluwaayu jamono euh, nekk ci seen wet di leen informer di leen wax li xew euh, ci àdduna bi parce que léegi léeg dañuy nekk dañuy nekk foo xam ne maanaam maanaam dañuy wétal yàlla ba nga xamante ni duñu lu bëri ci affaire mbiru àdduna mbiru àdduna daf leen di daf leen di rëcc waaw sëñ Mountakha par exemple. waaw nga nga gis benn moment nga toog ñu ne semaine bi mënoo gis sëñ bi dafa fatu. waaw semaine yàlla mu di wéetal gisoo ko. mu génn si ëllëg si rek déglu woon rajo seetaanul télé mi ngi ci xaside yi. mi ngi ci alxuraan ji mi ngi ci kurus bi. waaw euh, lu bari mën na ko mën na koo. mën na ko échappé léegi loolu bu bu ngeen ko dimbalu si benn encadrement boo xam ne. mais hmm. bu dee encadrement dañoo ñëw. Hmm. benn camp jënd ko. camp bi jënd ko. Mm. wala benn camp am na benn penchant ci benn côté bi. mais mm. musiba day am. si su boobaa nag côté boobu lay waxee. Mm. côté boobu lay jëfee ñeneen ñi sentir ne beddi nañ leen. te gis nga kilifa diine bu amee ñene ci wàllam ñu sentir ne beddi nañ ko rek musiba am commencé naa dugg si. parce que man mii taalibe bi damay am lu ma metti mm-hmm. parce que du neex nga toog sa sëriñ ne par exemple nga xam sa sëriñ dafa far foo xamante ne yow faroo fa. Mm-hmm. di ku sañ fii sa sëriñ du far fen uh-huh. ku sañ sa sa sëriñ du far fen parce bu faree dina am ko am na ñoo xamante ne ni ñuy faree moo ëpp est xam nga uh-huh. am na ñoo xam ne bañ nañ Moustapha peut-être parce dañoo jàpp ne dafa far ak diw uh-huh. Moustapha neexuma du ko xool parce dama kon moo tax far dafa garaaw moo tax ñu naan boo nekkee si position yi bul far parce boo faree rek di nga gaañ ñenn ñoo xamante ne waaw non parce que am na mënuñu ah. distingo bi Mahfouz mm-hmm. mën na doon koo xam ne taalibe bu am niveau la mm-hmm. da ngay toog sax ne sama sëriñ sëriñ bi daa farak diw mu ne am na ci droit mm-hmm. man sëriñ bi yoonu yàlla laa sekkanteeg moom maamam laa jokk woon bu ko neexee mu far nga gis ko xam ne danaan sëriñ bi dafa far man pare naa si man man moom waxi sëriñ bi sax bu ma ko kenn wax kooku <laughs> beneen dimension la comme kenn mënoo maîtriser ñëpp li la war rek mooy côté boobu nga jéem am nekk ci benn équidistance boo xamante ni boo yëkkatee kàddu mm-hmm. mais côté déclaration ça comprend nettement diplomatie la waxee mm-hmm. wax ak ñi nga xamante ne ñooy askan wi ñu ànd ak daal mm-hmm. euh, surtout moytu destruction bien public yi ça c'est très waxu njaboot la ah. wax njaboot effectivement waxu waxu njaboot noonu noonu lañ mën a waxee euh, yilif nga ñu nekk ci côté bële yilif nga